yoon avion ndox. kañ la ah man may <laughs> bu neex bi Siin Saalum neex na yaay. kaay ñibbi Saalum neex. Ah. bi nga Njaay. <laughs> <laughs> kaay ñibbi Saalum Sine Saalum neex na yaay. ay ñi bisaal. xar ya jar xar ya jar. nday ay kañ ànd Saalum Cheikh Omar Talla gone may dëkk waaye maga lay daan rek leel bul dugg ci taaraay boo ko duggee da nga koy achevé. rek leel bul dugg <laughs> da nga koy achevé. Euh, yow da mën lii yow yow yow toi tu es un macho. tu es brutal. <laughs> tu n'es pas romantique. Euh, tu n'es pas doux. Ah. loin d'être tendre. toi tu n'as tu tu n'as aucune qualité. kawoo nga sa copain da nga ko <laughs> ci cheville booy. kilifa nuyoo nuyoo ma doogay ñëw si Cheikh Omar. mbaa ma nuyu sama avocat maître Souleymane Soumaré. Ah, moom nga dama bëri histoire léegi sama avocat bi ne ma. ne réponds pas à la provocation. <laughs> léegi daal je réponds pas à la provocation pour euh, comme nuyu nga ma. te yaay kilifa. jéggal naa la je réponds pas la provocation ki ko mën ak ki koy def du benn. ki dafa nuyool ñu ñëw. <laughs> ah xel internet yi. non mais maa ngi maa ngi internet yi vraiment ñu ngi nuyu ñëpp tout le monde di nuyu également ñi ñu bokkal plateau di nuyu Soxna Aram Design. ah. kii Linguère soxna design Linguère soxna design. non day ah, aral ah, day aral ah, day soxna design. leer ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a eh, baax. xam naa ci tabaski bi incha allahu bi dina def dina génn ci fu baax pour nday arab. dégg loolu. donc vraiment ñu ngi ko. xam nday arab loolu c'est c'est c'est loolu nday arab euh, buñ paree nii. man jël xaram. Cheikh Omar kon. mais problème moom dafa ne ah, nan day aram rek ñëw jël si xar bi loolu ah, bu yónnee wee. Ah. guddi bu yónnee wee jël si aram di nuyu sunu sunu grand sunu nijaay. tey dafa dugg see ak benn calme quoi xaw nu mu demee noonu. ah non. <laughs> daa yokk ñaawaay bi rek am na yenn xeetu ñaangari da yokk sa ñaawaay rek. xool sa jamono Aliou fay nga impôt. nee na xool sa jamono ma ndax fay nga impôt. Cheikh bëri une déclaration sur l'honneur. <laughs> comme comme je <laughs> mais avec quelques petites omissions certainement. ma jambal fayagul ndax yow fay <laughs> na. am Ndéné am Ndéné. am moo njëkk a tëgg. Ah. moo njëkk a tëgg spectacle ak Kaolack. am Ndéné Dieng moo njëkk a organiser Oscar des vacances temps yooyu c'était danse moo amoon danse. Hmm. ay jamonoy pirate. yow mosoo dem Oscar jamonoy Black Master. Hmm. jamono yi voilà temps yooyu amoon am Ndéné Dieng c'est quelqu'un boo xamante ni moo ñu yàq. et puis il était ami intime à mon grand frère donc il était tout le temps chez moi ci kanamam la ñu màggee mu nekk nit koo xamante ni daa baax bay jooy am deen su ngeen waxtaanee léegi mu jooy jeng la sant moo tax xam sama yaay jeng la sant boo santee jeng la ngay baax jeng la sant waaw ah, jeng wenn boor sa njaay ah. ah, ak man tamit nuyu nañ la alors après nañ ko wax. déclaration moom moo ma jaaxal. tamit na déclaration kilifa am na ñaangale wax boo ko ñaange dañ yokk sa ñaawaay. 30 yi ñuy wax ci nga bokk. ma ñaari déclaration la. 30 entreprises de presse yi si nga bokk. du ma wax ci ñaari déclaration. ankay man waaw ah, bàyyi leen ko mu nuyoo nag. non j'aurais deux deux déclarations à faire. deux décla waaw déclaration sur mooy. ak déclaration d'amour. Oh. kilifa ku dugg na yow it. <laughs> voilà. alors voilà. la première déclaration de euh, de, de patrimoine mooy effectivement j'ai le dernier quitus fiscal foog naa war na ma ñetti weer léegi. Hmm. yaa nga moom mi ah yaa nga moom mi ah, bon ah. war na nañ koo gis. Ah? mën nañ koo gis. mais euh, bu bu wóoree ni mun nañu parier d'abord avant ma koy indi. Ah. comme ça di nga perte tuuti xaalis. carrément amoo amoo amoo amaloo bor benn yoon fisc. l'islam day tere parier l'islam day tere parier dégg nga mu wax. su ko gëmee kay nee na mën na andi bon mën na andi dernier dernier bu ah, d'accord ah. mais dañu saara mosu dëkk la non non dernier bi mën na nekk 2019 mais bala ma kaa indi non le naa ko indi. waaw xool ça date de bala ma kaa indi dañuy parier ba pare. acca am na suuf si 50 000. y' a pas de souci. topp nga kii boobu sax chef d' entreprise yow. wuy <laughs> ma mais dernier <laughs> waaw mais le dernier ça peut mën na mën na doon. waaw léegi léegi yow da bëgg xam ndax bu bu mujj bi laa yor wala déet. waaw le dernier trimestre. waaw da nga ko bëgg xam. waaw moi je dama bëgg ñu parier comme ça je te fais perdre de l' comme ça ma distribué ko sama boy. tontu na la non non mais juste naan di bu bu bu si les réglo avec le fisc depuis que. non non le mandat et le mandat li ma bëgg c' est simple. Ah, dama bëgg ñu parier bu dee mosoo am problème ak fisc ma jox la l' yaa koy vérifier parce que. non man man non non en privé da ngay xool. privé comme ça mu jox la cinquante mille. jarul parier. ñu boole ko ci xar mi. parier dama xamul sax lu tax man xam nga ñaan la ñu war a laaj. ñi entre deux mille treize ak deux mille vingt quatre qu'est-ce qu'ils ont fait comme boulot ñaata la ñu fay impôt ci réew mi yooyu nga war a laaj. surtout que dañu doon laaj réew mi ba am ko. Hmm. n'est-ce pas. boobu boo gën a yomb. waaw daggatu impôt yi may fay nii loolu bariwul ay huit cent mille. Aliou ñu ngi lay bu baax di la fay. Donc c'est pas beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir euh, tout le monde. eh ben, euh, j'ai envie de chanter. Déclaration. Ah non, pas de chanson. Je, mais, Qu'il va chanter, il faut chanter. Qu'il va way, doole ba way, way way. Aliou way. La voix de Aliou. La voix de Aliou. Même way social. De toute façon, la voix de Aliou. Frère Zako. frère. aram bu waxee bu ma woy du ma woy. doo woy waaw ñeneen ñi ñeneen ñi moom compté compté wu ma leen. aram de ko woy aram de ko woy waaw kilifa compté wu ma ko. opéra la fi woy opéra. bàyyi ko mu woy. wala ay Zak Brel ne noonu la pas woy. il faut que mu dellu ci a woy. sinon ah, dina ko woy. voilà faale wu kilifa faale wu ma euh, Moussa Euh, même sax booy seet sax Pape Ousmane faale wu ma ko trop. <laughs> yow wayal rek Pape euh, euh, Cheikh Omar Talla moom kenn waxatu ko moom moom moom. mais wayal rek c'est un dernier ressort. Hmm? léegi lan nga bëgg a woy lan nga bëgg a woy léegi lan nga bëgg a woy déglu leen opéra. Dans mon cœur, dans mon cœur. Allez, va pour l'amour libre, toi et moi. on dirait deux étrangers. Là, en territoire, en face au café. Regarde-la, tu vas bien comprendre. Elle t'embrasse encore plus fort. Eh, et toi, tu trembles. Alors, il dirait ah, que c'est tendre et tendre. Ils sont. <laughs> <laughs> ñu teg seen ñu teg seen réussite ñaari plan yi ñaari plan yi. Babacar jooy Adam il a les larmes aux yeux. Babacar moo ci dugal Assane. xam nga Assane dafa yaru mais Babacar moo def lii. waaw kumul kumul way comme man. waaw yëpp nag aram parce que um nag. <laughs> ah ak neex bëgg nag. alam da ci almaa bëggoon nga waxee. ñoo koy wër nag ñoo koy wër. mosaare ngay xataraayu foofu. ak nag nag moo mën a nekk suñu tiitar nag ak mooy suñu tiitar ci plateau bi. eh ben c'est une femme formidable. elle est belle. elle a un beau sourire. elle est intelligente. elle pose les bonnes questions. elle est respectueuse. c'est juste que je ne sais pas si elle est. tu amoureuse. <laughs> Eh, dafa am benn femme. de femme boobu si États-Unis la nekk xaw ma moo leen doon nuyu. Eh. femme boobu dafa mel ni keroog dafa ma doon dóor. <laughs> dafa ma xas ba pare nu mu tudd femme bi sant jaxate xaw ma nekk États-Unis. Eh. gis nañu femme boobu te mu yónnee woon message ci groupe bi. ah moom la nu mu tudd. mu ne wax leen Aliou Sow nag xam nga nag Massa kooku doon la jéem a doon. waaw <laughs> naa aussi. j'ai oublié gisee. la quoi waaw doo studio bi noonu benn jour. voilà c'est une grande fan de de de de de Sans Limites surtout euh, de Digg Penc. dama déggoon muy wax ci kii bi mais à chaque fois dama ko bëggoon railler tout tout le temps ça fait trois semaines. mooy bi mu waxee temps yële. donc du coup dama gisoon mu may jéem a dóor quoi pour mu xam nga noonu noonu xam xam nga c'est une vraie pastéfière. <laughs> léegi nag mu may mu wax mu wax ay wax ba si man daal man Aliou Sow ah man Aliou Sow jàkkal na ko quoi man Aliou ah, ñoom ay xale